dafa bari ay école particulièrement lycée ak ay CM yo xamné yi danaka dañu nan euh yok i frais d'inscription gis nañu CM bu melni CM Samba Gueye bi nek euh, HLM def ko ba juromi junni alors que ñaar ñaari junni mom moy euh, manam montant bi nga xam moom la war a déposé li ñuy wax moy képp ko xamné ne ndonga nga ci Sénégal da nga jàpp ne circulaire bi nga xam ne moom moo ko wax dafa ne kenn warul dépasser ñaari junni même bu fekkee ne daf ci boo ci boole blouse ak ay informatique ak yeneen ak yeneen donc loolu dañ ko bëggal yëggal ñëpp te képp koo xam ne aussi versé na lu ëpp ñaari junni na dem réclamer la montant ba ca tegu te bu demee aussi bu fekkee day versé xaalis na demandé ñu dal di koy jox reçu ñun daal am nañ ci ay firnde yu wóor boo xam ne bii école bi nga xam ne bii moom moo tudd CM Samba Gueye bi nekk euh, HLM Dakar loolu la ñuy def ñu ngi yokk ñu ngi ñu ngi gën a xóotal gëstu bi nag pour xam yeneen école parce que leer nañu ne ci réew mi bari nañu koy def te ñëpp ñi koy defit ñu ngi leen di wax ne nañu ko arrêté lu ko moy bu ko defee ñun dinañu mën a informer d'ailleurs les autorités sont déjà informées parce que secrétaire général bu ministre bi ak directeur formation et communication bu ministère de l'éducation nationale waxtaan nañ ci ba ñoom nee nañu sax dinañ génn benn circulaire boo xam ne day rappeler pour que loolu dal fay jóge combat nguur gi la waaye combat ñi nga xam ne ñii ñoom ñoo ŋànk ñoom ñoo jur xale yi muy ñun way juru ndongo yi le li ñu ci metti rek moom mooy parents yi souvent dañu dul jéem a gëstu pour xam texte yi nga xam ne ñoom ñoo régir association parents d'élèves